tey jii ñun yaay yi COSEF yi dañu gis ne euh, violence yi comme niñ ko daan xeexee parce que dañuy dañu transversal ku xam nga ku ne droit rek ah ku ne égalité des sex da ngay xeex aussi lépp luy inégalité kon da ngay xeex euh, lépp luy violence ñu trouvé ne lii euh, suñu doom yi di jigéen ñi di dund ci teel a maye bi biñ leen di teel a maye te loolu gën am nag ci milieu rural xale yi jigéen ñi ku ci daq jàng moom la ñuy gën mën mayee nag ndax ka euh, góor gi nekk ca koñ euh, kër euh, ca village ba moom lay gën teg bët muy doom nga xam ne ñun ñoo xeexoon dox tëgg suñuy bool ne suñu doom yi jigéen ñi dañoo bëgg ñu jàng ñu toog ci école ba ñu réussir ci école ba te xam nañ ne jom ju jigéen bu réussir ci école njëriñ kese la du mës a bàyyi ay parents ku góor ki xëy na sa bu takkee jabar des ak jabaram mais ku jigéen ci li ci ëpp la muy liggéey yëpp daf koy versé waat ndeyam ak baayam ko kooku dañ ko war jàppale néewuñu bu mu bu mu sëy dina sëy mais ñu bàyyi ba ay cëram mët kooku bu cëram bu demee ba cëram mat 18 ans yaakaar nañ ne cëru jigéen dina mat kon kooku bu ñu ko bàyyee mu sëy à 18 ans euh, comme ni ñu ko mayee ko góor ko je crois que loolu ñun dinañu gën neex ñun yaay ndax ñun kat ñoo jur ñu góor gun ñu jigéen ñi lu ñu bëggal suñu doom yi góor yi la ñu bëggal suñu doom yi jigéen ñi kon nañu may chance boobu nga xam ne moom lañ may ñu góor ñi euh, article 180 cent 116 euh, bi ñu xoolaat ko réviser waat ko tëggaat ko ba nga xam ne dinañ ko mën a jox euh, may xale bu jigéen bi mu marié wu à 18 ans looloo ñu tax a nekk fii parce que 16 ans ay ciram mëtagul 16 ans jàngam day yàqu ñi ci ëpp ci village yi 16 ans ma ngay def troisième xam nga dañuy am retard 16 euh, euh, ans amatul amul benn avenir devant elle 16 ans xamul lan mooy àddina xamul nu ñuy yoree kër xamul nu ñuy yore jëkkër donc loolu je crois que war nañ ci mën jàppale yaay yi